waxtaan na yàgg ak Dakar TV. ça va choper ana Xaadim Ties. Wa maa ngi nii Xaadim Thiès a ngi suma xarit Xaadim nga ni. waaw dama ne asalaamaaleykum Thiès asalaamaaleykum allo Dakar TV yéen da ngeen di télé boo xam ne ñàkk leen a xam wóorul man sama connexion bu jeexee allo Dakar a ko jeexal ndax dama leen di suivre ci internet bi. tadaba huraka tadaki tawrat kit kit ramba pa pa pa ramba pa pa pa kit kit ah tadada kit kit ah tudun ñu doxantu allo Dakar TV ana waa bëre bëre bëre